jërë ngeen jëf mbokki internet di info bi ngeen gisee jotaay bi la ñu toog ngeen gis ni suñ gannaaw ngeen xam ne am na luy xew lu yees loo xamante ni tey jii moo tax ñu toog toogaay bii muy ñii di waaye Yaya doon ñoo xamante ni nag ab bio la boo xam ne day yëngu ci xeeti saf-safal yooyu Yaya épices Yaya bi nga xamante ni moo ñëw daaneel mbooleem xeet yi mu fekkoon ba mu ñëwee nag daf leen teg ci suuf daal di ñëw fas yéene ah, gat ah, nekk ci dëkk bi fas yéene defar dëkk bi waaye ñëw nag ngir ci anam gu bees goo xamante ni moom lañ leen fas ne présenté fi nga xamante ni mooy ci ñoom ñi nga xam ne ñoo taxaw ñu ngi kilifa yi fii nga xamante ni mooy ci suñu ginnaaw ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéeykat yi ñëpp ngir rek ñu fas yéene leen présenté li nga xam ne ni moom mooy yaayaa yaayaa nag xeeti euh, togg yi yéen toggkat yi nga xam ne da ngeen di togg yàkkamti moo xam ci màggal géeg yi mën a doon bu ngeen ñëwee jëflanteeg ñii di waaye yaayaa moom seen togg du tardé du yéex dana neex dana saf kon képp koo xam ne nag bëgg nga ci li ci gën a leer kilifa yi nga xam ne nii ñoom ñoo nekk ci kii bi muy entreprise bu bees boo xam ne dafa fas yéene daj kàpp Sénégal waaye fas yéene sax génn réew mi ba ci yeneen euh, gox-goxaat yi muy sous-région bi kon ñu ngi kilifa yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii euh, sëñ bi ñu siyaar la bàyyi la nga présenté wu dellu si ci li nga xam ne ni mooy yaayam yi nga xam ne moom ngeen fas yéene présenté ñii di askanu Sénégal rawatina waa Touba. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ku ci nekk di la ziar di la jox sa Euh, tur bi Khadim Badiane la di responsable responsable vente Yaya waaw tey màggal 2023 dañu ñëw fii Touba pour euh, gën a feddali suñu coloré ak waa Touba indi leen produit bu tudd Yaya sauce épice ci format bu mag format bu ndaw am na tamit ay épices en poudre lu mel ni thym laurier paprika sept épices curcumin Euh, bëri na daal ay ay ay ay ay ay ay façon waaw sauce bi tamit même chose am na kaani bi am na marinade am na sauce sucrée muy paprika mais am na nit ñi ko gën koo xam ci euh, ñoom ñu bëri ketchup lañ koy tuddee mais sauce paprika mooy kii bi donc am nañ tamit aussi fii ay ay ay ay partenaires ku mel ni Abdou Samb bi nekk fii ci suuf mhm. am nañ aussi tamit Cheikh Fall bi nekk marché Daaru Xuddus Abdou Samb moom mu ngi Daaru Marnaan bon am nañ Ibrahima Ngom moom tamit mu ngi euh, marché okas affaire bi daal fi mu toll nii euh, law na ñu ngi ci dëkk bi jigéen ñi bëgg nañ ko ñu ngi koy utiliser xam nga dañuy ñaan rek waaw mu gën a jëm kanam affaire yi gën a yokk gën a neex liñ ñaan yokk cere dool li ñeex uh-huh. waaw loolu daal lañ lañ bëgg uh-huh. di wax waa Touba ñu ngi nii tey ñëw nañ ci màggal bi 2023 te ñu ñaan yàlla mu yem fi ren bëgg nañ ay année prochaine ñu ñëwaat gën a am doole gën a indi bagage yi gën a yokk affaire yi waaw fi mu waroon dëkkee sax mooy ñaanal borom dëkk bi sëñ Mountakha mu yàgg fi loolu tëwër xam nga di ko ñaan sàkku ñaanam aussi ci société bi mu gën ñu teg loxo gën ñu ñaanal xam nga ba ñu gën a jëm kanam ba romb fa kawe sunu njort incha allah yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def waaw tey tey jii societé bi bu bees la ñu bëri gis nañ ko mu ngi ci marché bi temps yi di ko lëmbee lool ndax jamono ji ñi nga xam ne ñooy suñu mbokki soxna yi dem ci marché bi moom tàmm nañ yaaya ba moom lañ jël temps yi def ko li nga xam ne moom mooy seen euh, ndug yi yeneen yi fekkoon moom da teg na ne ñëw leen nii lan secret bu nga xam ne la moom la yaaya am par rapport ak yi mu fi fekkoon lan mooy différence bi dafa indi lu bees hmm. wala goût bi moo gën a neex wala lan moo tax ba jamono ji yaaya moom xew na xew boo xam ne foo tourné si dëkk bi yaayaa ngay dégg yow mi nga xam ne yaa nekk si liggéey bi nekk responsable vente bi di yëngu si njaay meeg yooyu noonu ak dépôt yi fii nii bu ressources yi bëggee yëpp fañ lañ mën a jaar pour mën a yëg si si yéen mm-hmm. loolu li koy waral mooy naturel la parce que yaayaa lépp naturel la amul dara lu chimique lu ci am wala kii lépp naturel kaani bi naturel la euh, sauce bi naturel la lépp naturel amul dara daal lu chimique xëy na peut-être loolu ñun ñi nga xam ne man ak ñi nekk sama gannaaw nga xam ne ay xale lañ ñëpp xam te ne nañ liggéey xale xale mooy mooy mooy mooy liggéey maanaam peut-être tamit loolu noonu mën na mën na tax ñu agsi fii ñu agsi tey waaw parce que boo gisee sama équipe bi nekk sama gannaaw xam nga xam ne ay ay jàmbaar lañ ay xale lañ bëgg nañ liggéey bi waaw des fois sax xam ne ñoom man maay yeexantu ñoom ñoo may soññ di oote indi bagage indi bagage mooy loolu noonu daal la demee waaw distributeurs yi moom comme ni ma ko waxee sànq ci commencement bi rek Abdou Samb Daaru Marnaan ku ñëw ci Abdou Samb grossiste moom mooy suñu leader mooy suñu représentant fii ku fi ñëw di nga soo demee euh, marché Ocas Ibrahima Ngom soo demee di nga ko fa fekk soo demee mar Daaru Xuddus soo demee ci Cheikh Fall di nga fa fekk waaw tamit ñu ngi aussi ci ci Sénégal bi yëpp ba ci instant bii sax àgg nañ ba ba ba Gambie mhm. di ñaan yàlla peut-être dem Mali Mauritanie yi ainsi de suite ci sous-région bi mais mu toll nii ma Sénégal moom foo dem ci Sénégal marché boo dem bu soobee yàlla di nga ko fekk waaw sous région bi moom fi mu toll ni pour le moment ñu ngi Gambie waaw di ñaan yàlla nag peut-être mu ñu dem ba ci ba ci ba kan yenn dëkk yi incha allah. Ah, tey boo demee yaa dëgg ngeen ba Gambie mais tey Magal Touba bu 2023 bi la ñu nekk. Mhm. am na loo xam ne loo ngeen indil clients yi ci côté promotion ni mu war a demee ba nga xam ne képp ku soxla mbir mi rek di nga ko am ci lu. prix boo xam ne bu abordable lay doon et puis moo xam boo soxla bu dee grossiste bi la wala détaillant bi mm-hmm. nan la ko mën a defee ba nga xam ne mu bañ koo jaawale ak yenn yi pour mm-hmm. produit bi dëgg-dëgg nit ñi xam ko bañ koy jaawale parce que yow nga xam ne yaa ciy liggéey xam ne nga mbiri boo ko expliqué nga xam ne ñooy seetaan dañ gën a xam dëgg bu nekk lan mooy rôle am la war a jëriñ ci togg gi bu ko mm-hmm. defee ki nga xam ne moom daa déggoon yaayaa doog koo gis mosagut ko bu koy mosee moom nga xam ne du si def erreur ba bu ko mosee bu ko tegalee alaaji bi tabarkàlla ak gan yi ñëw si màggal waaw bii bii moom comme par exemple bii mooy marinade bi mhm. marque bi mooy marque Yaya mhm. bon bii day dem ci lépp day dem ci ganaar day dem ci soos day dem ci mhm. euh, yàpp day dem ci lépp daal moom mën na dem mën na dem fépp c'est c'est déjà préparé comme boo toggee sa ganaar rek tey soxna si bu la defalee ganaar bu baax nga wàcc boo demee day teg yaay bi dangay ngay jël rek sotti mariner sa mariner après daal di utiliser kaani bi tamit même chose noonu la kaani bi tamit même chose la te lépp lépp naturel la amul dara amul dara lu lu euh, lu chimie lu ci nekk lépp naturel la uh-huh. kaani naturel lañ ko defaree def ci vinaigre ay laaj ak euh, poobar lépp lépp tout est naturel tout est naturel uh-huh. amul dara lu lu chimie loo xamante ni dafa dafa nekk ci kii bi ba pare am am goût am odeur bu bu bu neex bu muy dégagé ku bëgg daal lu saf daal bu soobee yàlla boo ko jëfandikoo dootoo ko dootoo ko bàyyi mel ni dafa am ay sachet ak yooyu noonu waaw bii mooy sachet yi sachet poudre yi ah. comme par exemple bii mooy sept épices bi sept épices moom day dem ci lépp jigéen ñi xam nañ ko bëgg nañ ko waaw day dem day dem ci lépp bu ñu mélange la sept épices épices yu bëri jël la euh, composé ko tuddee ko sept épices sept épices lañ jël boole ko moo tax mu tudd sept épices waaw nokkos ci biir daal lépp a ngi ci biir moom bii moom da ngay ñëw rek rek wala def sa nokkos rek après mu daal di mu daal di saf daal di saf neex daal di saf neex tabarkalla mm-hmm. am na yeneen it de soos saa yeeg waaw soos soos bii mooy soos kii bi bii moom bii moom temps yi mooy lëmb dëkk bi ah. waaw mooy mooy jaay ketchup la ñuy wax mais mooy soos paprika bi bii moom mooy lëmb dëkk bi fi mu toll nii sax stock bi ñu fi indi woon sax daana ko jeex na maa ngi nii su ma jógee fii damaa war a delluwaat ba Dakar pour indiwaat beneen camion insha allahu a waaw bii moom mooy kë ketchup bi moom tamit da ngay ñëw rek def ba mu normal rek daal di utiliser uh-huh. waaw yooyu noonu xam naa sëñ Xaadim Badiane gis ngeen yi mu wax mais du des ndax suñu bokki soxna itam ñu ngi fi ñoom itam li ni moom mooy yëf yi lañ ci a mën a ndax ñoom jigéen lañ comme ñëpp te dañ ko gën a mën a expliquer suñu bokki soxna ba nga xam ne mhm. bu fekkee ñoom ñoo koy utiliser ku nekk da nga xam noo koy defee lii lu mu laaj biteel bu nekk boo ko yoree nan nga koy utiliser bu fekkee togg bi mbanagal la moo xam cin gu mag la wala gu ndaw mhm. noo koy utiliser ba nga xam ne comme ni ngeen ko waxee xam naa ni yii moom tabarkàlla ndax gis naa ci yoo xamante daal du ñàkk dana baax lool ci borom kër yi ku ko ci defal moom sa borom kër guddi googu du nelaw tabaarkàlla te li nga bëgg dana ko am lekk gi dana gaaw a rees <laughs> eh, danay mën a eh, doxal bu baax Mm-hmm. aca ñu jëm si mbokk soxna yi ñoom itam ñu dellu si si mbir nan la ñu ko war a expliquer suñu mbokk soxna yi mm-hmm. aca comme soxna yi ñu ngi nii kii mooy Aji Fatou Badiane moom itam mu dellu si waat mu gën ko expliquer en a comprendre dëgg-dëgg soxna Aji ñu bàyyi la ak mbir yi salaamaaleykum sëriñ Touba si Muntaxa Bachir Mbacke yàlla fi yàgg lool te ànd ak wér di ko nuyu di ko jox wàccuwaayam ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di ñëwaat rek si suñu produit Yaya yi produit Yaya produit bu naturel la 100 pour cent naturel ay épices kase lañ ko defaree bii mooy moutarde marinade bi bii mooy sauce épicée paprika am nañ tamit sauce piment moo nekk nii facile à utiliser yomb na yomb nañ ko utiliser bii nii day dem si ginaar jën yàpp Euh, sauce vinaigrette salaat yooyu yëpp boo koy defar mën nga ko utiliser yomb nag gaaw na mburu sax mën nga koo jël rek utiliser ko comme de même que kaani bi aussi bi moom sauce sauce la euh, paprika mais c'est sucré aussi comme genre ketchup rek am nañ tamit ay épices bi seen épice la bi tamit neex naa utiliser day dem si nokkos yëpp dañ koy utiliser am na tamit ay thym curcuma paprika bi kaani ma kaani la mais sous format euh, petit format la juróom lañ koy détaillé si boutique yi yooyu lañ fi yooyu am. Uh-huh. lii nii moom sax mel ni xéwale na de parce que moom yaakaar naa ñi nga xam ne ni moom moo mënuñu am si mag yi bu ñu laalee si seen lépp dina màjji màjji. waaw waaw dañ ñun poche yëpp lañ defaraal parce que kaani ku mënul jënd kaani bi euh, ñu koy jaayee 500 si boutique yi mën na utiliser yi benn juróom lay jar boutique yi ñu ngi koy détaillé benn juróom. moo gën a gën a yoon gën a économique aussi. yii nii moom sas yi ñu gis nii moom nga xam ne ni moom daal na ni moom itam. ci waa lii de laurier la bi bii laurier la am nañ sept épices am nañ paprika curcuma am nañ lu euh, de province am nañ origan anis épices yu bari kon léegi daal laurier bi nga xam ne bu bu bu xob bi la moom léegi bii moom. waaw bu ko neexee mën a utiliser waaw en poudre bi. tamit yomb naa utiliser ngay ñëw rek euh, sotti sa cin wala nga def sa nokkos defar sa cin def sa nokkos tey mbokk soxna yi tey butéel bii bu fekkoon na nga ko jënd yor sa cin lu mag bu koo utiliser maam noo koy def day dem yëpp ci cin bi lay dem noonu wala moom am na ñu koy kii cin lu mag nga ndax puissance am maanaam par rapport ak yeneen comme dafay fekkoon yoo xam ne nii dañoo kii moom mu ñëw pour kii leen peut-être bu fekkee dañoo tàmm boobu da def te doos bi mel noonu bi yëpp ko doos duñ ciy def boo xam ne nii dana équilibre ak li ñu bëggoon waaw xam nga bii nii petit format la am nañ grand format bi su waaw am nañ grand format bi uh-huh. moo nekk nii uh-huh. euh, ça dépend rek si si utilisation bi ki nga xamante ne dafa bëgg euh, kii bi gën a yem mën na utiliser petite quantité mais su fa bëggee affaire bi gën a saf mën na utiliser grand format bi te du te am benn benn inconvénient ak ak bii c'est la même chose bii bi euh, ketchup bi la rek mais en grand format. waaw ah, bi mooy bu mag mooy sauce paprika yi détaillé moom actuellement fi ñu toll li ñu koy détaillé ndax xéewale na. xéewale na kay bu mag bi ñu koy détaillé 1000 francs bu ndaw bi moom la ñuy détaillé. 500 ah 1000 francs. waaw parce que lu mu sakkanee. ñëpp la fi nekkal. yii nii 500 francs kon yii moom lu waay am am si. lu waay am am si. kon màggalu ren gi moom fu ko waay bëggee rek. dina dina moom ñëw na ñu saxal lépp. <laughs> waaw allah moo xam borom. yàpp gélemi mhm. la moo xam nagi la moo xam xari moo xam bëy kon lépp loo xam ne waa ba si ginaar yi nga mhm. xam ne moom la suñ mbokki sëriñ ci gën a bëgg mhm. te yaakaar naa amul benn effet boo xam ne mun na ko def par rapport ak yeneen yi nga xam ne moom la nit ñi sàntroon léegi yéen waaye yaay yéen soxna yi ci liggéey tey jii ah, liggéey bi nu muy demee ci biir mbir meeg yooyu noonu yéen distributeurs yeeg nu muy demee noonu euh, yomb na de comme ni ko sama sama sama collègue bi waxee rek am nañ ay distributeur fii si bi yi nga xamante ne su fekkee dangaa dangaa bëgg produit bi boo demee comme ni mu limee rek di nga fa fekk produit bi si différentes localités yëpp ñoo ngi fi te tas na tamit si marché Touba bi. ak yéen a yéen wër si marché. waaw ñun tamit ñoo ngi wër si marché di ko jaay. ku ko bëgg si mu wax moom boo demee dañ ko fa fekk incha allah. léegi si biir Touba fii bu fekkee yan heure ngeen xëy ak yan heure ngeen wàcc pour bu fekkee nit koo xam ne da ko dégg. bëgg leen a kar moo xam ku ne Daaru Kudus wala ku ne biir marché Ocass wala mu ne beneen lieu. Mhm. bëggoon leen fa xaar pour bu ngeen yegsee mu mën a jëflante yéen directement par rapport muy dem ci grossiste yi ak détaillants yi si biti. 8 heures dinañu fekk si marché bi incha allah. Mhm. bala ñoo wàcc 17 ba 18 heures ku ñëw si bi ñu nekk. du ñu fekk waa waa yaaya ñun ñëpp allah. maanaam da ngeen di tas bu ñu xëyee ñuy dem Ocass ñuy dem beneen marché ñuy dem wala da ngeen di xëy def trans marché Ocass tey beneen yoon ngeen dem feneen wala wala. waa noonu lañ koy defee. Mhm. comme tey suñu xëyee Daaru Marnaan ñëppay nekk Daaru Marnaan bu fekkee dafa fees tamit ñu génn génn secteur boobu dem yeneen secteurs yi. Mhm. dem ci yeneen secteurs yi mhm. kon yaa ngi noonu mbokk yi nga xam ne yéen a koy dégg produit la boo xamante ni mhm. yéen mbokki soxna yi yëngu ci waañ yi yombal na leen lu baree bari ci seen togg mu gën a saf guub bi gën a neex gën a sakkan te gis nga niñ ko expliqué léegi kaane moom ku ne xam ne day reesal lekk ba suñ mbokk docteur yi sax dañ koy digle mu doon loo xam ne yu am am solo la ñu liggéey ko nag ak produit naturel ndax ni ko waxee laurier bi dañ koo def léegi mu doon poudre li nga xam ne nii mooy euh, yeneen yi si aju itam mu doon ay poudre gis nga yooyu itam lépp naturel la ci loo xamante ni bëgg rek ku nekk booy togg sa togg sax neex te doo am benn jafe-jafe rawatina yi ñi nga xam ne da ngeen war a sanc si màggal gi bugg a togg léegi affaire yi noppi ngeen jox ko seen gan ña xam nga toggal ko xiif moom day laaj mu gaaw <laughs> te lii nii da ci am solo day gën a yombal mbir yi mhm. xam naa dañ leen di bàyyi rek bu ko defee ngeen gën a kii ñaaxaat mbokk yi rek bu ko defee ñu tàggoog mbokk yi waaw ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi delloowaat ziar bi di wax na yaayaa moo ngi fi ba fii ak màggal bi incha allah ku bëgg produit soo duggee si marché yépp incha allah di ko fa fekk si bu yomb bu mag bu ndaw yépp am na fa incha allah ñu ngi leen di delloowaat ziar bu weex. Mhm. xam naa fàttali rek comme ni ñu ko waxee woon fi nga xamante ni mooy bërëb yi nga xam ne képp koo xam ne soxla nga fa moo xam ngay ab grossiste bëgg. produit yi bu dee Touba Daaru mën naan la boo demee di nga fekk kii di Abdou Samb numéro 77 la 682 14 15 moom Abdou Samb moo nekk Daaru mën naan ñu fàttali leen numéro bi 77 682 14 15 boo wooyee kii di Abdou Samb Touba Daaru mën naan mu daal di la livré la nga bëgg ca na nga ko bëggee bu dee Daaru Xudóos la da fekk kii di Cheikh Fall woo ko ci 77 664 15 21 Daaru Xudóos képp koo xam ne bëgg nga lii di produit Yaya bi boo bëgg ci anam boo ko bëggee rek booyee kii di Cheikh Fall dana la ko daal di livré numéro mooy 77 664 15 21 bu fekkee kii di Abdoulaye Diagne moo nekk fa nga xam ne mooy Touba marché Ocass boobu tam boo ko woowee 77 638 95 73 di nga jokkoo kii di Abdoulaye Diagne mu daal di la livré produit yi nga xam ne bëgg nga ko muy produit Yaya bi nga xam ne moo lëmbee jamono. bu fekkee nag ba tey marché am nañ fa ki nga xam ne mooy Ibrahima Ngom moom itam mën nga ko woo ci numéro téléphone bi di 77 535 37 61 Ibrahima Ngom mu ngeen ko woowee si 77 535 37 61 di ngeen am lépp loo xam ne bëgg ngeen ko soxal produit yi nga xam ne nii moom lañ leen di présenté nii ngeen jàkkaarloog ñun nga xam ne jamono jii foo wër si marché bi boutique yi koñ yeeg yëpp yaaya moom moo lëmbee mbir yi mu doon produit boo xamante ni bu naturel la boo xam ne nii bu am am solo la xam naa rek dañuy bàyyi suñu gars yi rek ñu def comme ni ñu koy defee rek bàkk yaaya tàggatoo kon mbokk yi. ku mën ci soos. ku mën ci ganaar. yeeyaa ku mën ci ndawal. yeeyaa moo mën moo ëpp doole moo gën a féete a xale. moo mën moo ëpp doole moo gën a féete a xale. sa kaw yaa sa kaw nekk leen jë rek day gën a neex rek di gën a baax chéri tey moom dama am invité yu spécial ñu bëgg lu neex am guute sell te yow rekk laa ci woon man rek ah loolu riche na man rek ci xale yeeyaa waaw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 هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر سلام